alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñuy topp ci rajo Kepar FM 99 point 7 fii ci Kaolack ñu ngi dellusiwaat ànd ak yéen ci jotaay bi ñu bokk muy jotaayu fatawa tey di jotaayu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar muy cent quatre-vingt-douzième émission di ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko nangul ñu te nangul leen mbokk yi nga xam ne dañoo woote rek ngir eh, joxe seen ñaan ak seen cant ngërëm ak seen mbégte yàlla yàlla nangu ñaan yépp eh, yàlla boole ñu ko wax dëgg noonu ngeen di seede ci eh, cheikh bi Euh, ñi ngi ñaan suñ borom sant daal yàlla na ko yàlla nangul lépp daal waaw ngeen saxoo di ko ñaanal rek waaw ndax am xam-xam ba noppi euh, am yittey euh, jottali ko jox ko yitte lool waaw di ci def ay sacrifice yu bare bari li ñuy ñaan rek mooy yàlla na ko suñ boroom nangu te bëril kamam yàlla li ko tawfiq kon cheikhana am na mbokk yu bari yoo xam ne xëy na jarul ñuy jaar seeni tur waaye daal ci émission bi moom ràññeeku nañ ci lool ci joxe seen cant ak ngërëm ak seen ñaan kon ñu jox la kàddu gi nañ ko baaxoo defee rek nga tijjil ñu jotaay bi su ko defee ñu jublu ci liggéey bi in alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 mbokk mi abu maabad al kawlaxi lañ koy wax nee na ndax néew suñ koy sang dafa am tëddin woo xam ne moom lañ ko war a tërale am nuñ ko war a tërale daal ne bopp bi daa war a féete fii tànk yi féete fële wala boog nuñ ko tërale rek baax na li am solo rek mooy ñu sang ko ndax daal ak wuute da ci amoon ci eh, digganteem ak eh, ñeneen. alhamdulilah sang ku génn àdduna day lañ ci xam rek mooy dañ koy sang eh, di wëlbati ba keroog noppi ci sang googee amaa nag nii la bopp bi féete nii tànk yi féete loolu moom dajewuñu ak lenn loo xam ne lu koy jàngale la ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax dañuy jàpp ne fu mu mën a jëm rek baax na wallahu taala aalam barakallahu fikum cheikhana mbokk mi day laaj ne ndax jigéen dagan na muy wujje ak bàjjanam noonu la ko laaje alhamdulilah déedéet jigéen du wujje ak bàjjanam bàjjan nag mooy koo xam ne dafa bokk ak baayam ndey ak baay wala mu bokk ak baayam ndey wala mu bokk ak baayam yaay te nekk jigéen jigéen jooju yi nga xam ne mook soxna sii nga yor noonu lañ deme maanaam jigéen ji mook baayub soxna sii nga yor te ñoo bokk baay wala ndey ak baay wala ndey jooju jigéen mënoo ko boole ak ki nga yor nekke noonu ndeyam ju ndaw ki bokk ak yaayam ndey wala baay wala ndey ak baay bu fekkee bàjjen bi la nag boole ko lees munta def waaye mënees naa yor kii ba tàggoog moom yor ko ca des mënees naa yor bàjjen ba bàjjen nekkatu fa ñu dem jël doomi càmmiñam soxna safaan bi it mën naa am wallahu taala aalam jazakumullahu xayran cheikhana tontu yooyu leer na kii day laaj soxna Xadi Ba nee na day dégg ñu naan weer weeru wolof day bii su nekkee ñaar fukki fan juróom-ñeent da ca topp fanweeri fan rek la mën a doon noon daal la ñuy weccantee muy laaj nag ndax loolu sharia ci boppam moo ko jàngale wala boog nit ñee ko aado wax rek nit ñee koy waxantu rek waaye sharia moom eh, tëraleewu ko noonu alhamdulilah weer ci lislaam benn mu nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala mu nekk fanweeri fan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa bi koy misaal dafa ne achahru hakada wa hakada maanaam benn mu doon lii benn mu doon lii loola nag ña ko dégg jàpp ne dafa wax ne bu fekkee ne fanweer la ci gii yoon wacay tegu ak juróom-ñeent lay doon waca tegu doon tegu ñaar fukk ak juróom-ñeent loolu njuumte la demewul noonu weer daal dañ koy séentu rek su fekkee séen nañ ko fekk ñaar fukk ak juróom-ñeent yi mat nañu seen ko ñu xam ne woowu weer ñaar fukk ak juróom-ñeent la suñ ko seenul bu ca ëllëg ñi xam ne bis boobee moo ko li mottali fanweer ñi xam ne woowu weer fanweer la weer ci lislaam du yées ñaar fukki fan ak juróom-ñeent waaye du ëpp fanweeri fan loolu rek mooy lañ ciy xamee waaye nag pour wane ne bu doonee lii beneen ba ca des lii lay doon déedéet kon bu doon bu boobaa kon mbir mi dana yomb lool te dootuñu aajowoo sax di seentu weex bu boobaa dañuy xam ne rek vingt neuf la woon kon wii ñëw trente lay doon wa ca teguwaat vingt neuf lay doon wa ca tegu trente lay doon waaye mbir ma nag demewul noonu tërewul noonu ci wàllu xam-xamu fëlëg tërewul noonu itam ci charia wallahu taala alam athabakum allahu cheikhana mbokk mi Moustapha Badji lañ koy wax xam naa laajam bi sax léegi bokk na ci laaj yi nga xam ne léeg-léeg taxul mu àndak ak ndax laajub tafsir de te la ca gën mooy dem ci mufassir bi rek mu firil la ko wala nga déglu kaseetu tafsir yi waaye xëy na ñàkkul daam lu ko ci lënt moo tax nee na laaye ji suñ boroom wax ne wajaahidhum bihi jihaadan kabira maana laay ji daal da bëgg a xam alhamdulilah dëgg la euh, programme fatawa tafsir alquran karim taxu koo jóg xëy na am yeneen i programme yoo xam ne tafsiru quran moo ko tax a jóg laaj yu foofa la gën am barab waaye ginnaaw ñëw na rek danañ ci sànni ay kàddu borom bi tabaraka wa taala dafa wax ko yonentam ni ko fala tuti lkafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira fala tuti lkafirin mooy bul topp yéefar yi maanaam la ñuy gaaral naan la woyefalal diine ji euh, kaay ñu def nangam fekk lañ ci jublu mooy nga teggi tànk ci lenn ci li la sa diine sant ñi wàcce ko ci yow yow yonent bi loolu bul ko dégg li ñu wàccee ci yow muy diine yàlla ji buñ mën a tax nga wàññi ci lu toll ne tarfatul ayn wa jaahidhum bihi alxuraan jii nag na nga ci jaamaarloog ñoom def ci effort ci jottali ko jàngale ko tasaare ko ba mission bi la sa boroom jox tasaaroo na nga fexe liggéey bu rëy boobu nga taxawe ko mooy sukkandiku ci alxuraan fas yéene luñ la mën a teg ci ay lor luñ la mën a teg ci lori jëf wala lori wax wala lu mën a doon na nga dëgër ci alxuraan dëgër goo xam ne lu mën a xew da nga jot jottali nañ ne ab dof la nañ ne daa am ñeneen ñu ko koy sax nañ ne ab jabar la sax luñ ca mën a wax lu mën a doon yow loola bu leen faale lor ja mën naa metti mën naa dem sax ba àgg ci jëliyat ak jaasi ak xeej di xeex waaye lu ca mën a doon su boobaa yow sa effort boobee ngay joxe ci tasaare alxuraan mu ci teggi benn jéego kon diini ji daal muy alxuraan ji ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi lañu ko digal te digal ko aw xeetam mooy na woote ci alxuraan woote ci sunna def ci effort bépp woo xam ne mën na ko ba keroog ngay wuy ji àdduna eh, wuy ji boroom di génn àdduna loolu rek la laay ji wax wallahu taala alam athaabakum allahu Muhammad Njaay day laaj nee na ndax dafa am na ci wax mbaa jëf joo xam ne ku ko saxoo suñ boroom dana la musal ci mbugalum bàmmeel ndax daal loolu sharia jàngale na ko alhamdulilah ah, kay am na ay wax ak jëf yu bari sax nag yoo xam ne day tax a mucc ci mbugalum bàmmeel bokk na ci loolu al istiqaama muy sax ci diine yàlla ji al nag ni ko waroom xam-xam yi waxe dañ ne xol bi nga xam ne tawxiid daf caa sax mu mucc ci bokkaale xol bi nga xam ne mi ngi teewlu boroomam ci mboolem ay jëfam lu muy def lu ne yàlla rek a tax am li ñuy wax ixlaas xol boobu mooy xol bu am listiqaama xol nag bu xasee am listiqaama ba nga xam ne wéetal yàlla nga ca sellal ngir yàlla nga ca su boobaa jëf yu baax yépp dañuy ñëw da koy jëfe ala kulli xaal tomb yu bare bari dikk na ci musle ci e, mbugalum bàmmeel bokk na ci sax jàng suratul mulki e, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam munjiya la ko tudde nee na day musle ci mbugalum bàmmeel waaye ànd yooyu yëpp dafa am xadis boo xam ne xadis bu màgg la ci bunt bi boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ci jullit bu nekk muy jaamu yàlla yooyu yi diggante julli ak woor ak joxe asaka ak rafetal jëme ci bindeef yi yooyu yépp day musli ci mbugalum bàmmeel xadiisu abu hurayra bi nga xam ne tabaraani ak ibnu xibaan yoo ko génnee mu nekk xadis boo xam ne bu wér la ni ko cheikh mohamad nasiruddin albani waxe Abu Hurayra daf ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na néew bi su fekkee dugal nañ ko ci xabroom nit ña di seen dàll ya di yëngu ñuy dem su fekkee ne ku gëmoon yàlla la su fekkee ku gëmoon yàlla bàyyi xel loolu moo jiitu istiqaamatul xalbi ji ma doon wax a yi mooy xol bu sax ci tawxiid su fekkee ku gëmoon yàlla ne julli day dikk tolloog bopp ba koor dikk féeteeg loxol ndeyjoor la asaka dikk féeteeg loxol càmmoñ la jëf yu baax yem doon def nag ci sarxe yeneen naafila yaag rafetal jëme ci bindeef yi yooyu toog ca tànk kon léegi moom julli nga koy protéger ci bopp bi koora nga ca loxol nday joor la asaka nga ci loxol càmmoñ yi yeneen jëf yu baax yi ak naafila yépp ñu ngi jot tànk yi nee na su fekkee ne lenn nar na koo dikke sudul noona te jóge ci bopp ba julli ne fii di kenn du fi jaar soo amee lu bëgg a jëm ci wetu ndeyjoor ga koor ne fii kenn du fi jaar su amee lu bëgg a jëm ci wetu càmmoñ ga asaka ne déedéet fii kenn du fi jaar suñ ko bëggee jëme ci wetu tànk ya ne jëf yu baax yaag sarax yaag naafila yaag rafetal ga jëm ci doomu aadama ya ñooñu ne fii kenn du fi jaar nee su boobaa nag dañ ko wax ne ko jógal mu jóg diju ñu won ko mu mel ne jant bi day bëgg a soo ñu ne ko xoolal mu seen jant bi lang ñu tàmbali nag di ko laaj ne ko kii ñu yónni woon ci yéen loo wax ci moom lan ngay seede ci moom nee su boobaa mu ne bàyyi leen ma tuuti jant bi day bëgg a soo ma julli door a tontu ñu ne ko da nga julli waaye rek tontul ba noppi nee na mu daal di ne kooku day mooy Muhammad maa ngi seede ne mooy yonent yàlla bi maa ngi seede ne dëgg la indi woon jële ko fa yàlla su ko defee ñu ne ko lii ci nga doon dund ci nga dee ci ngay dekki itam insha allah nee ñu daal koy ubbil bunt boo xam ne ci bunti àjjana yàlla ñu ne ko mu xool gis ñu ne ko lii mooy sab toogu ëllëg sa kër ak lala fa yàlla waajal nee na mu bég bég mu réeréeréeréy ñi won ko it nag beneenu toogu boo xam ne bopp sawara la ñi ne ko bii kat yow lañ ko waajaloon itam su fekkoon ne danga sax ci mooy yàlla ak def lu baaxut ba faatu waaye bi toogu moom tey keneen a koy doon waaye yow saw yoon nekkati ci mu daal di dolli ko kon xadis bi lim lay jox mooy jaamu yàlla yii nim la ko junjale muy julleeg koor ak joxe asaka ca kam war ca moom ak def lu baax nga xam bunt bu yaatu la boo xam ne ki ki mun mënta joxe asaka sax buntub joxe ay sarax bunt bu def ay naafila ak rafetal ci nit ñi ci wax ak jëf yooyu yëpp dafa doon yoo xam ne ay protection la yoo xam ne day aar nit ki ëllëg bi kanam boroomam kon mbugalum bàmmeel bari na lool yoo xam ne mën naa musal nit ki ca loola waaye xadis bi lu ma a bàyyi xel la ndax jaamu yàlla yii kat kon nekkut loo xam ne lu woyof la bu fekkee ne daa xam ne ëllëg dañ ci fay ca àllaaxira waaye balaa booba da lay fegal mbugalum bàmmeel loolu yi day lu mat a bàyyi xel la naam barakallahu fikum cheikhana mbokk mi day moom day liggéey waaye nag eh, bëccëg gi day topp liggéey bi ba du julli su delloo këram nag ci guddi gi nee na moom dina fay moom dina góorgóorlu ba fay li muy laaj nag mooy ndax loolu sharia daganal la ndax loolu mën naa nekk wala boog mënta nekk alhamdulillah kooki nga xam ne day yendoo liggéey ba guddi mu door di fay ay julleem loolu yi muy def day lu garaaw ci ay caaxaan la nekk de julli di su ko faat te tey ko ku ko faat tey ku mënoo koo fay bàkkaar bu rëy rëy bu jéggi dayo la boo xam ne dara dara mënu koo dindi lu dul tuub tuub nag mooy nga rëccu li nga doon def daal di koy yemale foofa te yàlla tax duutoo ko defati kon na soppi aw doxaliin lu mën a nekk lu nekk bu julli jotee na julli liggéey boo xam ne nit ki da koy fàggoo àdduna te xam ne sa wërsëgam yàlla noppi na ca liggéey bu mel noonu jarul faat waxtu woo xam ne waxtu julli la wu yàlla wutal waxtu woo xam ne ca lañ ko mën a def inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquta borom bi tabaraka wa taala julli da ko wutal waxtu woo xam ne ku tey tey lu mu jàll moom jàll na xanaa geneen julli ngay wax waaye googa moom mënatoo koo fay kon na soppi aw doxalin tey julli waxtu bépp contrat bi liggéey boo xam ne day am contradiction ak jaamu yàlla yi nga xam ne mooy yi ko yàlla teg te rawatina julli booba contrat na ko fa bàyyi te seeti beneen wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhana mbokk mi Ibrahima Ndiaye lañ koy wax di wootee jalañ nee na daal boroom xam-xam bi nga xam ne du jottali li mu xam ci beneen waxin daal du taxawee li nga xam ne mooy yitte yi digle lu baax ak tere lu bon mu ne kooku lan mooy àtteem ci lislaam alhamdulilah boroom xam-xam boo xam ne dafa amub xam-xamam denc ko wala mu yemale ko ci boppam jàngalewu ko tasaarewu ko diglewut lu baax terewut lu bon maanaam yoram nekkul ca nit ña kooka day bu dee jaamu yàlla it mi ngi mooy yàlla ndax borom bi tabaraka wa taala dafa santaane diineem ci ñuy jottali ko te su fekkoon ne ñëpp dañoo mel ne kookii day kon diine lislaam moom dana fay ndax nit ñi duutuñu ko xam borom bi tabaraka wa taala nee na inna alladina yaktubuuna ma anzalna min albayinati walhuda min bacdi ma bayannahu linnaasi fi lkitaabi ulaika yalcanuhum allah wa yalcanuhum allaacinuun ñi nga xam ne jàng nañ ba noppi ba xam li yàlla wàcce waaye ñu wëlbati ko nëbb ko jottaliwuñ ko moo xam lu tax ñu nëbb ko ndax dañoo ragal walla dañoo rus wala dañoo moo xam jikko ju mën a tax jottaliwuñ liñ xam borom bi tabaraka wa taala nee na ñooña day yàlla rëbb na leen malaayikaam yi nga xam ne ñooy rëbb ku yàlla rëbbit ñooñu rëbb nañ leen yàlla ñu ci yàlla musal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku nëbb ab xam-xam yowmal qiyaam day dekki ñu defal ko laabi sawara ci gimiñam laab nag buñ ko waxee mooy weñ googee nga gis ñu koy dugal ci gimiñu fas suñ koy war wala suñ koy takk ab charrette nga xam ne suñ ko ñoddee jëm day jëmi nday joor mu jëm foofa kuñ ko ñoddee jëmi càmmoñ mu jëm foofa weñ googee nag kuñ ko soy ba mu xonq ci sawara woo xam ne bokkul ak sawaraw àdduna waaye sawaraw àllaaxira nga xam ne sawaraw àdduna ab takk ndeer rek la ca kuñ ko dugal ci sa gémmiñ luy indi loola lu mën a doon rek nit ki war na koo daw kon boroom xam-xam bi li ko yàlla dénk ci xam-xam na ko jottali kem kàttanam nag waxuñu noo def lu lum mënut waaye na def lam man nag na jottali na jàngale na digle lu baax na tere lu bon te yàlla tax naam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi de yi nee na moo ko fekke dañ doon julli àjjuma mbooloo mi bari lool ba am ñuy julli ci biti nee na ñu jékki-jékki microphone bi dagg ba ñu nekk ci biti déggatuñu imaam nee bi loolu amee nag ñu nekk ci biti ku ci nekk danga mottali sa julli li ci am nag mooy dañoo dem ba imaam fi muy sëlmale bi muy sëlmal rek ci la euh, microphone bi euh, delsi tàmbalee dox nit ñi nag dégg nañ sëlmalug imaam waaye nag ba muy sëlmal nag am na ñoo xam ne ñoom sëlmal nañ ba noppi mbir ya jaxasoo woon lool am ñi ne dañoo war a julliwaat te ñaari ràkk la ñu julli ñi des ne eh, dañoo war a julliwaat tusbaar ñi des ne dañoo war a bàyyi noonu moom daal ku nekk ak ni ko gisee mu ne woon nag na ko indi fataawa ba xam lu mel noonu ban taxawaay la ci ma'muum bi alhamdulilah xam naa li ñu xam day ci julli ajjuma wala geneen julli mooy jàkk moom bu xasee fees ba nit ñu nekk ci bitti loolu li muy firi mooy sàppe dañoo jokkaloo boo gisul imaam it ki ci sa kanam moom danga ko gis moom it dana gis ka ca kanamam ba kër ñuy àgg ca imaam kon day mel ne même muñ déggatul woon dara it yëngatuy imaam ña gannaawam dañ koy gis yëngatu ca ña ca gannaaw ñooña gis ko yëngatu ca continuer def noonu ba fa yëf yee kon jullee ci bitti rek warta tax situation bu mel ne boobu yi mu wax am waaye nag xëy na mën naa am ñoo xam ne fa ñu nekk dafa làqu ba noppi jokkoowut ak sàppee nga xam ne ñooy sàppee jàkka ja loolu nag lu bari ci boroom xam-xam yi dañ koy tere waaye su fekkee daroraa ko indi it mën naa nekk nga xam ne sàppee jokkoowul te it gisoo ñi ci sa kanam ñi ngay gisanteel daal daa mel ni yéen da ngeen a nekk rek ci benn saal boo xam ne jokkoowulee nag ña ca des la ngeen cay jariñoo daal mooy la ngeen di dégg képp lu mel noonu mën naa am léeg-léeg jàkka dana am salle de prière bu nekk ci suuf am bu nekk ca kaw su fekkee ña nekk ci kaw dañoo jekk ba mu yàgg déggatuñ dara kooku situation daal nay daal nay am su boobaa nag la fa sës rek mooy eh, kenn ku nekk àggaleel sa bopp sa julli su fekkee imaam daa julli benn rakka déggatuñ dara su boobaa kenn ku nekk nag da nga continuer àggale sa julli soo ko àggalee eh, sa jaan wàcc na moo xam jamono yi ngay sëlmal fekk na imaam sëlmal na wala sëlmal a gudd ndax àndatu leen da ngeen tàggoo mu ngi mel ne soo fekkee woon benn rakka rek jóg di fay beneen atte boobu rek lay yor wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhna tontu yooyu am na solo mbokk mi day laaj nee na ki julli su demee ba war a sëlmal ndaka lay ndax day njëkkee ci kanamam soog a geesu jëm ndey jooram wala boog ci ndey jooram lay tàmbalee Euh, njàmbaas ci sax leneen loo xam ne laaj bee ñoo xaw na ñoo taq muy ki nga xam ne day sëlmal dem ba geesu ci ni mu ko waxee soo ko wax asalaamualeykum wa rahmatullah ne kooku it lan may àtteem alhamdulilah kii julli day asalaamualeykum ji bu koy wax na fekk moyagul qibla na fekk moyagul qibla kon asalaamualeykum day wax geesu buy àgg ci wa rahmatullahi wa barakaatu ci yu noonu mën naa fekk na mu geesu ba aksi ci wetu ndey joorom waaye salaamaaleykum ji daal moom bu koy wax bu mu fekk mukk ne mooy na xibla moo tax loolu muy junji njuumte la te am na ñu koy def mooy geesu ba noppi doone ne asalaamaaleykum wa rahmatullah kooku njuumte la ndax geesu ci biir julli la te geesu ci biir julli te tey ko lenn ci borom xam-xam yi nee nañ day yàqu julli ñenn ci des na dañ koo sib yaar yooyu nag dara baaxu ci kon say boo rek wat nit wattandiku ko kuy daal asalaamaaleykum wa rahmatullah fekkee ne loolu ngay wax fexeel ba asalaamaaleykum bi jamono yi koy wax moom mooy goo xibla mu ngook ahsanallahu ileykum ko mi laaj bi day jaar na fi waaye yàgg na nee na liñ muy asalaatu xayrun min an nawm mu noddukat bi fan la ko war waxe ndax ci nodd gu njëkk ci fajar la koy wax wala ci noddu ñaareel bi alhamdulillah mu koy at taswib muy asalaatu xayrun min an nawm jaaroon na fi ab bañ waxoon ne ci nodd gu mujj gi lañ koy waxe ni ñu ko miine ci jàkk rek noonu la bu ñuy noddu nodd bu njëkk kenn du ko wax ci fajar ci guddi sax laay wax ndax booba fajar jotagut waaye bi fajar jotee nag ñii nodd nodd gi nga xam ne suñ ko xasee nodd ku julli am nga julli te buñ ko xasee nodd kuy woor mënatoo lekk nodd googi foofu la ñuy waxee asalaatu xayrun min annawm wallahu taala alam jazakum allahu xeyran cheikhana mbokk mi nee dafa am ay axadis yu li muy wax ne daganul nit ki di soppi kawaram ci ñuulal ko euh, léeg-léeg sax am ca yoo xam ne day tëkku mu ne nag dégg na ci fataawaa mu ne nga wax ni dagan na nit ki soppi kawaram ñuulal ko su fekkee ne du naxe moo ko tax a jóg walla ak naxe amu ca muy laajte nag ndax axaadis yooya daa wérut wala boog nu mu tëdde alhamdulilah mbokk moom yi nuru na ne ab jàngkat la mbokk mi doon laaj lu jëm ci wàllu kawar ak nuñ koy topp toog buñ koy soppi nuñ koy soppee xam naa bala ñu cee sànni ay kàddu danañ ko delloo ci téere fatawa bi feeñoon ci at mee ab fatwa nga ci boo xam ne dafa détaillé du jëm ci loolu ak dalil yeeg xadis yooyu muy wax ne day xuppe yooyu amu ci lenn loo xam ne lu jëm ci luy tere ku soppi kawar ñuulal ko la bu dee ci xadisu abi quxaafa bi nga xam ne abu bakar da koo indi radiallahu taala anhu góor gi weex tal yonent bi alayhi ngeen demee soppi leen kawar ga dafa am ab baat buñ ca sànni boo xam ne du waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wa jandibhu sawaad lu ñuul loola bokkul ci xadis bi shaad la am nag yeneen i xadis yoo xam ne it day wax lu nu nuroog loola yooyu rek mi ngi ci diggante xadis yoo xam ne yu wérut la wala xadis yoo xam ne la nit ñi defe ne moom lay le tegtalewut loola loolu moo tax li gën a wér mooy saxaaba yu bare bare bare bari soppi nañ seen kawar e, fekk dafa weex ñu soppi ko mu ñuul loola moom dara nekku ci waaye nag xool àtte fiq bi mën naa am ñetti atte mënees na ko sop mën naa xaraam mën naa doon lu dagan kañ lañ koy sopp waroom xam-xam yi nee bu fekkee ni jihaad fi sabilillahi la nga xam ne soldaar yi jullit yi dafa bari ci ñoom ñu bijjaaw te loola bu ko noon yi gisee dañuy gën a dëgëru fit ne ay màggat la ñuy jaamaar lool su boobaa ñoom buñ soppee seen xawramu ñuul buñ leen di seene noonu kat nekkati ñu ni jaamaar lool duñ ay màggat loolu am na lu muy def ci seeni xol te xam nga ne guerre moom xar bu xarbu nafsiya lay doon maanaam xeex boo xam ne day dellu ci psychologie da ca am solo lool foofu dañ koy sopp mën naa xaraam su fekkee ne loolu yi ngay junj am na ci muy euh, naxe moo xam jigéen juy nax ku koy labat la walla góor guy nax ñamuy labat bëgg leen a won âge boo xam ne tolloo wutagub xaasam su boobaa dañ koy sib da day day am na sax boroom xam-xam yoo xam ne dañoo wax ne dañ koy sib ala xaal su fekkee lee amu ca nag jihaatut fi sabilillahi naxut kenn li ci diggante bi rek moo fa nekk muy lu dagan la amut lu koy tere moo tax boroom xam-xam yi bind nañ ci sax ay téere ku mel na ibnu abi aasim taalif na ab téere boo xam ne mi ngi ko jëmale ci eh, dalil yi nga xam ne ñooy wane ne soppi kawar mu ñuul dara nekku ci eh, mu ko daaneele ci ne daal moom sa kawar la yaa xam couleur boo koy defal yaa koy tànnal sa bopp waaye charia digalu la lii wala mu tere la naam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day daa wax ne nañu yar sikkim yi leen jéggal buñ leen laal muy aaful lixaa mu ne mu am ay nettali yu ñu jëlee ci ibnu omar yenn ya ci abu hurayra ñu ne ñoom de daan nañ laal seen sikkim daan nañ ko wàññi nee nag li muy laaj mooy nan lañuy dëppalee xadiis yooyu ak jëf jëfu saxaaba yi ndax dafa dagan nit ki laal sikkimam su dee dafa dagan fan la sikkim di toll ñoo sañ koo laal walla bopp boroom sikkim bu ngàtt baag bu gudd ba ñoo ca yem ku bëgg a laal rekk mën ngaa laal daal bëggoon na ci ay leeral alhamdulilah kay yonente bi alayhi sikkim yi mooy guddal ko na ngeen ko jàmmal itam mooy bu leen ko di wat kon lay cosaan ci ab sikkim daal mooy mënees na koo defar waaye wat nag moom bokku ca ndax nag mënees na koo jemp mooy coppati ci jële nañ ci ay saxaaba yi yoo xam ne def nañ ko waaye dañuy waxit ne bu boobaa day gudd ba ëpp woroom xam-xam yi ci fiq ñu ne dañ koy nattale ci ñaari ngëb bu fekkee dafa ngëb sikkim bi ci loxoom day jooram mu continuer di lang mu ngëbaat ak loxob càmmoñam la ca des di langaat ñu ne loolee mujj a lang bu ko neexee sañ na koo jéem sañ na koo dagg lu mel noonu nag day mel ne concerné wut ñi nga xam ne dañoo baaxoo seeni kawar di gàtt waaye kawaru nit ñu xonk ñi ñu weex ñi nga xam ne seeni kawar di gën a faral di gudd lool masala boobu day mel ni ci ñoom lay ëppee waaye néew na ci eh, africain yi ñi nga xam ne africain lañ nag moo tax may wax waxuma rek kuy dund ci Afrique néew na seeni kawar di gudd bay àgg ci yenn guddaay waaye ala kulli xaal ñu xam ne su fekkee ne gudd na ba àgg foofa daal wàññi ca dara moom terewuñ ko bu ko bàyyee noonu it dara nekku ci nag ndax saxaaba yi noonu mu amee ñu doon wàññi seeni kawar am na ñeneen ñoo xam ne wàññiwuñu woon dañoo bàyyi woon noonu wallahu taala alam jazakumullahu xayran cheikhana mbokk mi nee na nit ki su dee dafa aji ànd ak soxnaam nee na ñu def ajub tamattu mbaax xiraan war a rey hadiyu war a rendi hadiyu nee na su boobaa ndax ñoom ñaar mën nañoo bokk hadiyu ji maanaam bokk benn hadiyu wala boog ku ci nekk hadiyu daf laa war alhamdulilah képp koo xam ne da ngay tamattu wala ngay xiraan ci aj muy góor muy jigéen dam war na la maanaam war ngaa rey ab gàtt kenn mënu ce yóbbaale kenn ndax warteef la woo xam ne moo xeetu aj woow yi ñoo ànd su fekkee hadiyu la nag hadiyu moom la ñuy tudde tëbaskim kuy aj kooku da koy neex mu def ko euh, su ko neexee mu bàyyi ko kan mooy def hadiyu ci ñuy aj mooy képp kuy aj ku ne mën na koo def su fekkee ne day ifraat kooku moom dàmm waru ko ki ifraat dam waru ko waaye bu ko neexee mën naa rey gàtt muy hadiyu mu tudde ko am tabaskeem ki nga xam ne day def tamato wala qiraan man naa rey gàttub tamato am ak gàttub qiraanam ba noppi reyaat beneenub gàtt boo xam ne hadiyu la ko tudde muy tabaskeem waaye bu dee qiraan ak tamato moom kenn mënu caa yóbbaale kenn bu dee ñaar yi ma tudd nag muy ki ifraat ak ki nga xam ne daa def tamattu ak qiraan balay am gàttam ba noppi wëlbatiku reyaat gàttum xat yi su boobaa boroom kër mën naa caa yóbbaale njabootam ndax ndax tabaski la tabaski meloon rek nga xam ne góor day yóbbaale soxna su boobaa uh, da koy yóbbaale dara du ca nekk taala alam alhamdulilahi rabbil alamin kon mbokk yi mel na ni yegsi nañu fi ñu baaxoo yëkkati suñu jotaay di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dolli ñu tawfiq te dolli leen ko di waxaat amin amin ci ñaan yi nga xam ne mbokk yi eh, yóbbante nañ ko fi eh, di wax eh, soxna soosi nga xam ne mooy soxna Maguette Sylla te laajoon lu jëm ci niiw wala bokk kii jiitu noonu lañ koy ñaanale laaj la boo xam ne jaar na fi ay yoon te bërëbam du fataawa na fexe rek dem ci ab ustaas bu ko jege su dee lu mu bëgg mokkal la dana ko ko bindal su ko defee mu xam ko mokkal ko di ko jëfandikoo kon ñu ngi koy jéglu bu baax a baax ci ñàkk gaaral laajam dafee jaaroon ay yoon te lu mel noonu rek la ci cheikh bi tontu woon su ko defee dañuy delloo kàddu gi rek cheikhana ni ñu ko baaxoo defee mu tëjal ñu jotaay bi ñu dig mbokk yi daje incha allahu ajuma di ñëw ci seen beneen jotaayu fatawa allahuma salli wa sallim wa muhammad wa alihi wa sahbihi wa xanaa rek di wax rek su fekkee ni am na ay fàttali yu jëm ci fukki fan yi ñu dëgmal muy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski ki ne lii ca nekk su dee am na soññe gum ci soññe yi tamit du ñàkk mu mën koo rek yóbbaale incha allah ci tëcce gi su defee mu nekk eh, xitaamu miskin allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sunu borom tabaraka wa taala cheikh abdallah di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangu suñuy ñaan te nangu ñaani mbokk yépp dafa ñu tawfiq may nu lixlaas ci sunuy jëf ak ci sunuy wax saxal nañu siraatul mustaqim ak keru ñuy dajeeg sunu borom tabaraka wa taala wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmaina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh